téléspectateurs de Lou'Bess TV xanaa mu nuyuwaat leen rek am mbégte saa su nekk comme ñu koy defee di leen présenter seen premier numéro bi nga xamante ne moom moo di découverte découverte nag daf leen di daal di andi li nga xamante ne xamuñu ko wala li nga xamante ne sax dafa desee leer ci askan wi tey nag may am mbégte bu baax a baax dalal ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa projet Seydina Issa bu bu Cambérène xanaa ma jox Abdou Aziz Fall rek mu nuyoog askanu Lou'Bess TV waaw merci euh, Chérifa. Mhm. bi d'abord. donc euh, maa ngi nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan. Mhm. donc euh, di leen baalu àq di leen baalu àq ci at mu bees bi ñu dugg. di wax ni rek Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg pour ñi ma xamul donc man la Abdou Aziz Fall nekk secrétaire général projet de développement Seydina Issa Laye bu Cambérène en même temps nekk acteur de développement merci. merci beaucoup Abdou Aziz Fall ñun itam dañuy kontaan bu baax a baax ci dalal la ci fii nga xamante ne moom moo di projet bu Cambérène lu ci wet benn yoon da ciy fegoo ak ki nga xamante ne moom moo di Badiane Aram Badiane Aram nekk bajanu gox la wante itam nekk membre fi nga xamante ne moom moo di projet Seydina Issa Laye bu Cambérène Badiane lay nuyoog askanu lu bees. waaw asalaamaaleykum waa Lou'Bess TV maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk si turam ak santam di leen ñaanal jàmm ak xéewal ñu fekk ay at yu bëree bëri di leen ndokkeel ci at mu bees mi waa man maa ngi tudd Badiane Aram. nekk euh, euh, membre CA ci projet Seydina Issa Laye doon seen trésorier u SEDIB bi nekk nu gox aussi tamit si biir commune Cambérène merci beaucoup na tey nag euh, waxtaan bi dafay ñeel soxal li nga xamante ne moom moo di wàllum état civil euh, nga xamante ne jafe-jafe yu baax a baax daf siy am xale yu bëri nag dañuy daal di judd duñu leen déclaré sax wala itam nañ leen di déclaré du jaar yoon tey nag ñu teewal fi ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa projet bu Cambérène ñu fas yéene si waxtaan xanaa rek euh, ma jox sama Aziz sama première question. waaw merci loolu soo ko laajee man dinaa sawar a tontu soo xoolee. Euh, projet bi ñun dañ ci bu teg ci deel ak ci bële bi mhm. et que ñu siy bëri également si suñuy waajur yi jaar nañ fi encore une fois projet bi donc si li mu yëngu mooy euh, ak ak yelleef xale dina ñi nga xamante ne ñoom ñooy tout temps bi donc comme ni ma ko waxee rek projet bi mhm. euh, nekk na projet boo xamante ni six lañ fii dans la région de Dakar donc lu si mel ni Cambérène Ouakam Sébikotane Dalifort Yoff ak Guédiawaye mhm. donc ñoom ñooy xool bi nekk pencum Dakar ñi nga xamante ni moom lañ dégg suñu intervention nag dañ koy jëmale si xale yi mhm. ñi nga xamante ni dañu am zéro ba cinq ans ñi am six ba quatorze ans ñi am quinze ba vingt quatre ans mhm. donc chaque tranche d'âge nag am na ay série d' activités yi nga xamante ni ñoom la ñuy defal ñoom donc am na dañuy yëngu également si volet yu bëri de mhm. santé éducation formation entrepreneuriat sax dugal nañ ko fi mais également euh, euh, euh, parrainage xamante ni moom mooy suñu inter domaine d' intervention bi ñu ëppal solo donc loolu daal moom mooy association Seydina Issa Laye bu Cambérène Ah, macha allah gis ngeen euh, nu mu ko développé ah, projet Seydina Issa Laye bi projet communautaire nekkul rek ne Cambérène la nekk mais am na yeneen i gox yi nga xamante ne implanté nañ fa li nga xamante ne moom moo di projet bi ñeel lekk li nga xamante ne dafay jëm ci xale yi wante itam jëm si mag ñi xanaa rek ah, tey nag dañuy waxtaanee lu am am solo mu di état civil nan la ñuy def ba déclaré xale yi bàjjan aram ñu question boobu dafay daal di ñëw à chaque fois ñi di wax am problème kayit xamuñu nan la ñuy xale yi ana ban yoon la ñu war a jaar pour mën a déclaré li nga xamante ne moom moo di xale yi. waaw waaw xale yi Barika yi moom kenn déclaré wu ne. Mhm. bu baax yi daal. Mhm. gox yi yëpp foo dugg rek loolu moo fay métti. Mhm. muy ñàkk a déclaré xale. muy a déclaré xale loolu mooy cause bi njëkk ci xale parce xale déclaré na ko mu dem jàngi dem ba war a def examen. Euh, du du war a def examen kooku parent moo ko toll. bi si njëkk mooy xale bi bu fekkee ni bi si jëkk mooy xale bu fekkee nii amul amul këyit mhm. war nañu dem ci chef de quartier bi mhm. mu wutal ko domicile bu ko joxee domicile aussi mu dem sur état civil bi wut wut euh, certificat non moom lay moom lay àndal daal ak euh, domicile bu àndee moom aussi te mu jël photocopie yaayam photocopie papam ak mhm. ñaari témoin këyit yooyu moo valable bu ñu dem déposer di xale bi euh, si état civil bi fi nga xamante ni fa la wutee si état civil bi daal fi la war a wutee këyitu xale bi mais xale bi bi nga xamante ne moo sin euh, dafa amul këyit dafa amul cause yu bari yoo xam ne moo ko indi mhm. mooy yaay ji dafay nekk ci kër gi mhm. ñàkk ñàkk boo xamante ni manul talu doomam daal parce que saa yu xëyee bu bu accouché am doom mhm. dem dem dem bu pour dem li jënti këyit bi bu ko def bu accouché am benn weer daw na sa jaayukaay da ngay daw sa marché ba da ngay daw sa jaayu gerte da ngay jaay sa jaayu gën mhm. loolooy waral cause bi foofu lay jógee parent bi moo dul déclaré xale bi du ko tal ndax ñàkk da koy indi ñàkk mooy day indi xale bi du am këyit léegi nag ñun suñu bopp ñun bàjjenu gox yi ñu ngi ciy def ay jéego yoo xamante ni képp koo xamante ni di nga ci quartier bi da ngay sa xool ñëw ba xam am na kayit juddu wala ay amul kayit juddu bu fekkee ñu mën ci dox. Mhm. mën ci dindi parents yi. Mhm. ñu bëri xamuñu yoon boo xamante ni mën a jaar mais bu ñëwee si ñun ñi dina leen guider tegtal leen. Mhm. ba ñu am yoon ba nga xamante ni mën nañu jaar si état civil bi pour mën a am. téye xale yi. gis ngeen euh, leeral yi nga xamante ne bàjjen aram indi na ko si ndax euh, ñu fàttali rek ñoom bàjjen gox yi dañu am taxawaay bu am am solo wante itam membre yi nga xamante ne ñoo di membre projet communautaire bu Seydina Issa Laye itam dañ ci taxawee am taxawaay bu am am solo. Mm-hmm. xanaa rek Abdou Aziz Fall du ñàkk li nga xamante ne bàjjen mi ngi ko doon développé nga am ay kàddu yoo si mën a sànni. waaw parce que comme ni mu ko waxee ah c'est important. parce mm-hmm. euh, donc maanaam les causes. Mhm. parce que aram daf si développé lu am solo euh, boo xoolee nit ñi tey dañuy topp. Mhm. ay festivités. Mhm. maanaam xew ba fàtte ni xale bi dafa am ay droit dafa am ay àq ak ay yelleef yoo xamante ni effectivement moom moo moom moo moom lañ toog moom moo war warloo ak xale bi. Euh, dañ ni xale bi bu juddoo jouru ngénte bi rek pour man sax jour boobu noonu le lendemain mhm. papa ji wala yi ak yaay ji war nañ ànd jël seeni responsabilité pour dem déclarer ci xale yi mhm. mais aujourd'hui dañuy seetaan ni dañuy topp xew mi xew dañuy gis xew boo xamante day jël une semaine ba dañuy parte li waraloon nga xamante ne moom mooy xew mi muy xale bi xale boobu dafa war a màgg dafa war a jàngi te je pense que bëgg nga déclaré wul du jàggi mais également du am droit yi nga xamante ne tey war na ko mën a am sur le plan privé. Mhm. donc beneen bi euh, comme ni ko am waxee parce que yooyu su amee d'habitude ñun war nañ taxaw def jàngal. Mhm. mooy que ni nan lañ war a def ba xale boobu nga xamante ni étape étape bi nga xamante ni waroon nañ ci inscrire raw na ko nan la war a def lu mu siy développé du si du mu si yokk lenn lu dul mhm. par exemple accompagnement bi nga xamante ni moom moo war a am en tant que euh, état civil bi. Mm-hmm. ak au niveau du tribunal parce que ñu bëri tey boo leen nee tribunal dañuy yaakaar ni donc tribunal ku fa dem rek. waaw c'est c'est flagrant. Mm-hmm. alors que ku si nekk tey war na fa mën a dem pour régler say situation. Mm-hmm. comme ni mu ko waxee am ñoo xamante ni dañuy dem pour non inscription ak non existence am ànd ak benn protocole boo xamante ni. Euh, ki nga xamante ni moom mooy officier d' état civil moom moo koy joxe comme sous forme d' hmm. loolu nga yóbbu tribunal. Hmm. pour ñu mën a continuer procédure bi. donc xale bi day mel ni kuy waat mais day taxaw devant le juge ñu laaj ba xam kii moom mooy papam kii moom mooy yaayam pour ñu mën ko joxaat yeneen téye yi nga xamante ni retene ko hmm. mais boo xoolee également xam na des cas rares je pense que sànq rek arab mu ngi koy wax ci politique donc souvent da nga gis xamante ni euh, day gis benn mairie par exemple archive yi nga xamante ni moom moo amoon ba xale bi ñu war a dem génne ko kayitam uh-huh. archive yooyu duñ ko gisati mooy registre uh-huh. souvent ñun ñëpp si nekk am na numéro de registre euh, bi lay permettre boo demee soxla kayit nga dem ñu leen la mais souvent da nga gis ni ci yenn euh, maire yi boo demee pour ñu génne la sa numéro registre c'est tout un problème léegi nag da ngay yaakaar ne uh-huh. léegi nag loolu moom mooy waral ngay ak euh, non inscription ak non existence ci fichier bi ba defee yooyu boo ko amee day continuer su procédure pour mën pour xale bi mën am yenn yi nga xamante ne Abdou Aziz Fall indi na ko ci par rapport ak xale bi nga xamante ne kenn inscrire ko ana ban yoon lay jaar ngir daal am kayit te war a mën ah, yam ak ki nga xamante ne déclaré nañ ko bi nga xamante ne moom na damay wëlbatiku rek Sébastien Aram xanaa ma daal di lay laaj bu dee dañuy dem procès ah, ba ca tribunal ndax way juru xale yi rek ñooy dem wala dafay am tam ay témoins yu ànd ak ñoom. waaw bu ñuy dem ci procès ba sa tribunal waajuru xale yi dañuy dem. Mhm. waajuru xale xale yi ñoom dem. Mhm. waajur bi mooy dem muy papa ji. ak mhm. yaay ji. ak ñaari témoins yi nga xamante ni ñooy présenté foofu si ñoom dañuy taxaw. dañuy taxaw ñun ñaar témoins yi ji ak yaay ñoo ñuy taxaw. ci tribunal bi. ñu mën a defar suñu ana lan mooy taxawaayu témoin yooyu noonu ci bile procès. témoin yooyu seen taxawaay mooy dëggal ni xale bi doom bi diw moo ko mhm. dëggal ni xale bi diw mooy yaayam. Mhm. diw mooy papaam. loolu loolu yooyu ëllëg aussi tamit. Mhm. daf ci am lu ciy joué xale bi. bu fekkee ne tey jii këyitam rëy na wala papaam. gaañu ne wala leneen tamit ki nga xamante ne témoin woon na war na mën a dox dox boobu dem di jënd xale bi ay këyit am ak yooyu daal mhm. waaw témoin daal bien sûr lu muy def ëllëg lu am rek mooy bii moo tey moo ko témoin woon d' accord euh, macha allah gis ngeen bàjjen aram leeral yi nga xamante ne indi na ko ci euh, kon nekk jaadootul sax benn xale nekk si réew mi nga xamante ne déclaré wuñ ko sax wala sax amul li nga xamante ne moom moo di extrait de naissance Euh, yéen ñu ñuy seetaan à travers Lou'Bess TV découverte nag lii mooy njëriñam gis ngeen leeral yi nga xamante ne waa projet communautaire bu Cambérène indi nañ ko ci li nga xamante ne moom moo di wàllum extrait de naissance yi kon képp ku ci amul woon rek gis nga yoon bi nga xamante ne leeral nañ ko bu baax a baax ngeen daal di ci jaar rek daal di utal seeni ay doom ay kayit xanaa ma wëlbatiku ci Abdou Aziz Fall rek jox ko sama prochaine question bi mu dee ana lan mooy seen taxawaaye par rapport ak xale yi nga xamante ne euh, enregistré wuñu leen waaw boo xoolee euh, euh, lu mel ni tey yaa ngi dégg quartier boo dem si Cambérène am na lu naan CQPR. Mhm. mooy comité de quartier pour la protection de l' enfant. Mhm. mais également a le CCPE mooy comité départ euh, comité communal. Mhm. pour la protection de l' enfant bi nga xamante ni de la commune moom moo koy jiite. CCPE boobu noonu ñoom dañuy am rôle ay ambassadeur donc foo xamante ni xale jaaxle jaaxle na ko wala xamul lu muy def pour am kayit. donc ñoom dañ leen war a assister. pour nit yi. Mhm. souvent également dañuy jouer rôle sapeur pompier donc souvent da gis parents yi dañuy négliger mën nga leen wax procédure yi ñuy jaar yëpp mais du jël temps bi war. parce que certes ñi ngi daw dépense ñi ngi daw di uti leneen ak leneen. Mhm. mais souvent duñ joxe temps bi war moom moo waral tey. lu si mel ni tey le projet parfois ak euh, la commune. Mhm. ñoom ñuy organisé ay audience foraine. waaw rôle CCPE bi ak euh, CQPE yi donc yooyu yëpp da si bokk ñu au moins nga xamante ni. amuñu ku leen assister ñoom ñu mën leen jàppale ba ñu mën a am kayit mën euh, euh, gis nga euh, taxawaay bi nga xamante ne projet communautaire Seydina Issa Laye daf koy taxawee dañuy daal di gunge xale yi daal di leen taxawu ba nga xamante ne dinañ am kayit mën a dem jàngi comme seeni ay morom ma Badiane Aram dafa am na benn question boo xamante ne dafay faral di ñëwaat saa su nekk am na góor yoo xamante ne daanaka seen soxna bu muccee ba ñu tudd laak def wareef ci si tudd bi yëpp comme addis nu mu ko doon waxee sànq farataal li nga xamante ne moom moo di xumbaay yeeg mumbaaye ba pare daanaka li wàllum déclaration ñoom seen dañ siy xaw a sooxee duñ ko daal di respecté ni ñu ko war a respecté ana ban taxawaay ngeen si am yéen bàjjenu gox yi. waaw taxawaay bi ñu ci am mooy dinañ gëstu xool ba xam. Mhm. dem ci kër gi ba xam déclaré na doole bi mhm. bu fekkee parent bi amul jot dem na fii dugg fii amul temps xale bi. Mhm. ñun dañuy dem ci chef de quartier bu demee secrétaire bi secrétaire secrétaire bi uh-huh. ñu jël xale bi ñu jël maman xale bi. ak uh-huh. këyitu xale yi. Uh-huh. Euh, certificat de naissance bi ñu yóbbu ñu yóbbu ko euh, si si si si état civil bi. kon kon li ma la bëgg a expliqué leen mooy euh, kii chef de quartier ak bàjjenu gox bi am nañ droit dem jël xale bi dem déclaré ko bu fekkee parent bi déclaré wu ko waaw ndax dañuy bañ déclaré yoo xamante ne dafa tardé. waaw déclaré yu tardé la ñuy bañ parce que bu fekkee dem nga ba xale bi am deux semaines déclaré woo ko. mu am un mois nga doog ko déclaré lu ci topp tardif lay dégg. kon euh, wàllum déclaration yi boo ma ko permettre Badiane dafa am app boo xamante ne ci la ñu war a déclaré xale bi. nga waaw dafa boo xamante ne ci war a déclaré xale bi xale bi bu juddee semaine boobu yëpp dañ ko war a mën a déclaré bu amee 15 jours. Mhm. dañ ko war a déclaré bu demee ba am un mois nag boobu tamit. lu ci topp rek tardif lay nekk dafa tardé daal déclaré bi si këyit gi dañ ko ciy marqué ñu déclaré tardif la doon mhm. mais bu fekkee xale bi aussi dafa dema dema dem ba am 6 mois mhm. ba dem 1 an mhm. kooku moom jugement rek la xale bi mën a def parce que dafa tardé tardé na parce que un mayoon na la un mois. Uh-huh. nga mën a dem pour déclarer xale bi. Uh-huh. léegi nag bu fekkee déclaré wu ko ba 6 mois jàll ba 1 an jàll moom kooku xale bi moom jugement rek la mën a kenn mënatu ko si commune bi. Uh-huh. jugement rek la mën a wut ci tribunal voilà. Eh, ah, ma wëlbati si Aziz laaj la projet communautaire bu Cambérène ana lan lay xeexee violence yi nga xamante moom la ñuy def si xale yi. waaw je pense que ni euh, boo xoolee je pense que répondre na ci sax. que ni liñ ciy xeexee mooy installer d'abord parce que mënuñu kër gu nekk ñu dem taxaw ko fa mhm. ñu également bunt bu nekk ñu taxaw wala koñ gu nekk ñu taxaw mhm. moo tax loo xoolee euh, le partenaire jël ay éjecté ay million pour former ñi nga xamante ne ñoom ñooy délégué de quartier yi mhm. donc chaque quartier wax nañ ko dafa am lu ñu naan CQPE mooy comité de quartier pour la protection de l'enfant xamante ni day am bureau bureau bureau exécutif am également le président mais également am ay membres donc membre yooyu ay ambassadeur la fépp koo xamante ni si quartier bi mhm. yëg nañ ni am na xale boo xamante ni mi ngi fay subir une telle violence mhm. ñoom dañuy intervenir directement suñ demee ba nag am foo xamante ni fa la ñu yem ñi nga xamante ni leen dénk loolu. Mm-hmm. si mel ni centre yi nga xamante ni état moom moo leen fiy teg ñoom a yem ñoom ñooy continuer procédure mm-hmm. donc boo xoolee yu mel noonu la ñuy teg euh, à chaque fois pour mën a mettre fin à une telle violence. Mm-hmm. merci beaucoup euh, Badiane xanaa du ñàkk yow itam nga am loo xamante ne mën nga ko yokk ci li Abdou Aziz Fall doon wax léegi. waaw ko waxee rek ñi nga xamante ni teg nañ leen ci quartier yi. ñu bàyyi xel leen mhm. nëpp nëppal mhm. ñu bàyyi xel surtout loolu parce que dénoncé dafa baax mhm. loo dénoncé wul du faju waaw nañuy dénoncé loo xamante ni jaaduwul mais da nit ngay gis tontoom def ko lii wala rakkam wala keneen da nëpp nëppal nëpp nëppal bi daal la ñuy bañ waaw léegi foo war a jaar boo ñëwee si bàjjen gox bi dina la ko tegtal nga jaar fa boo ñëwee si chef de quartier bi dina la tegtal nga aw foo xamante ni fa nga mën a aw ba mu ba nga gindee nëpp nëppal bi daal nan ko bàyyi ci quartier yëpp ci ñëpp nag mhm. ci xale yi nga xamante ni ñu ngi leen di violé xale yi nga xamante ni ñu ngi di def loo xamante ni ñu ngi métti kër yi yooyu yëpp dañ ci war a dénoncé daal mhm. nit day dénoncé boo loo dénoncé wu du fajoo nëppal nëppal nag dafa yàq dëkk bi ba mooy loolu mhm. voilà ah jàngoro yaakaar naa ne boo ko waxulee du am saafara gis ngeen ne bàjjan loolu la wax nee na nëpp nëppal bi nañ ko bàyyi ngalawaay ah, ku ci am lépp loo xamante ne jaaxal na la wala rek lépp loo xamante ne bëgg nga ko dénoncé sa quartier mën ngaa dem ci ki nga xamante ne moom moo di bàjjanu gox bi wala rek nga daal di dem ci ki nga xamante ne moom moo di chef chef de quartier bi ah, mbokk Lou'Bess TV nag gis ngeen waxtaan bu am am solo bi nga fi amee woon ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di projet Seydina Issa Lahi bu Cambérène xanaa rek euh, ma jox Abdou Aziz Fall mu tàggatoog askan bu Best TV bu nekkee ne amul loo xamante ne war na ko mën a euh, joxe à travers cette émission. waaw merci beaucoup donc di la remercier ci invitation bi comme ni ma ko waxee chaque jour en plus également. di jégalu su dee am na kàddu yoo xamante ni teggi na wu ñu ko waxee yooyu yëpp ñu ngi jégalu donc l' autre aspect mhm. mooy di rappeler wu comme on a l'habitude de le dire mhm. yi également na nañuy am seetlu envers seeni doom parce que souvent ñu si bëri tey dañuy dem rek nii nii nii mais duñ am seetlu sa xale am na étape yoo xamante ni dafa tolloo également dafa laaj Euh, accompagnement dafa laaj taxaw mhm. dafa laaj également euh, wéeruwaay mhm. te loolu lépp je pense que ni surtout ñi nga xamante ne ñooy suñu yaay yi ñoom ñoo war a mën a gën a am sañ-sañ ak pouvoir taxaw xale yooyu mhm. donc maa ngi remercier ñëpp di remercier Aram ñu bokkal plateau bi ak yow également. ak mhm. mhm. ah, dinañ kontaan beneen yoon ci dalal la ndax saa su nekk ni ma koy waxee rek ah, bu ñu leen fi daal di dalalee ci émission yi bu mu mënti doon ci biir kër gi rek njàngal lañ siy jëlee te askan wi da ciy daal di bénéficier wu bu baax a baax bàjjan Aram lan ngay tàggatoo ak askan wi Lou'Bess TV. maa ngi leen di gërëm di leen sant. leen ñaanal yàlla defal leen jàmm mhm. di wax rek waajur yi nañu bàyyi xel ci leen njaboot bu baax a baax nit day bàyyi di xool di superviser bu baax a baax si njabootam di xool di gëstu di xool di gëstu léegi may ñaan nag yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla may nu dégg ak topp yàlla li nga xamante ne wax nañ fi bu dee juumte la su la bu dee lu kii na fii génn waaye merci beaucoup. merci beaucoup Badiane Aram ñu ngi kontaan bu baax a baax ci dalal ko fii mu am taxawaay bu ama am solo bi nga xamante ne mi ngi koy taxawee fii ci biir dëkk bi wante itam ci biti ndaxte wax dëgg yàlla ñëpp rafetu nañ bu baax a baax liggéeyam bi sax ba daal di kay nome li nga xamante ne moom moo di la femme de l'année fii nga xamante ne moom moo di Cambérène ñu ciy kontaan bu baax a baax di ñaax rek yeneen jigéen yi daldi aw ci li nga xamante ne moom moo di tànk Badiane Aram te yaakaar naa ne way jur yi émission bi xamante ne moom moo di découverte nag découverte saa su nekk rek dafay daal di découvrir li nga xamante ne xamuñu ko sax wala li nga xamante ne leerul cee kanamu askan wi ñu daal di ci indi ay leeral bu baax a baax di leen jaajëfal bu baax a baax wante itam di jaajëfal sama technicien Assane xanaa di leen jox dig daje rek beneen yoon ci beneen découverte